mbokk yi ñoo del seet rek du ñu tàyyi du ñu sonn du yokkat la fekk jaaruñ ci dëgg la fekk gis ñu réew mii tegu ci yoon jaar ci dëgg jaar ci yoon wu jub duñ tàyyi duñ sonn duñ yokkat Sénégal dana tegu ci yoon de lislaam bi tegu ci yoon lépp tegu ci yoon teg ci yoon siraatam saqiim diina ju wér cëng wala duñu sonn duñ tàyyi ci mbir mi boo koy xam ngeen déggati ngeen yu bon yu kenn xamut muy projet boobu ngeen dégg waa UNESCO doon ko jéem a taxawal taxawal nañ sax ñoom sénégalais nag ñoom ñoo des dañuy nangu waa dañuy bàyyi man nag képp koo xam ne dangaa dëkk ci réew mi rek di yeewoo ko xëy di lekk ka naan rek jéemoo xool sam réew dara jéemoo xool say ndaw dara man koo waxuma yow ki may waxal mooy ki gëm réewam ndax xubbul watan min bëgg fi nga dëkk dafa bokk ci yàlla su fekkee dañoo bëgg a coincer loxo coincer le baron rek lu waaye def ñu ni ñun nàngam ay jullit leen ay murit leen wala ñii ni ñun ay jullit leen ay tijaan la ñii ñun ay jullit leen ay nàngam lan bu fekkee loolu lañ bëgg a ay aywa nañu xool li diine bëgg mbokk yi ñu xartu tànk tubay mbokk luy dee lan mooy kaso ab jullit day yemane ñu dugal ko kaso ak ñu bàyyi ko muy tra traverse ci mbedd yi ñoo rek mais gëm-gëm la yow ba nga juddoo nga dugal kaso ba nga juddoo nekkub jullit nga nekk ci kaso kon looy dawaat ci ganeen kaso comme kase adduna yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ad mu sijnul mu'min wa jannatul kafir yow mi jullit moom te bëgg a appliquer bëgg a doxal li la lislaam digal bëgg a doxal li la diine digal bëgg a doxal li yonante bi sallallahu alayhi a sallam doon digle yow moom yaa ngi ci kaso moom ndax àddina du neex mais kon kaso goog duñ ci nekkee kaso yu àddina yu bon yi nga xam président yee ko tabax ak nangam nangam lu tax ñu koy ragal ñun wallahi billahi taalaay maa ngi wàcc yàlla la Yuusufa waxan loolu laay wax as-sijnu ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii Yuusufa bi ñu ko nee àggal ci kaw ndaw si àgg ci kaw ndaw si ndaw si di ko naxtaan ba koo andi pour mu sëy ak moom yu sa ni leen lii ngeen may woo dugg kasoo ma gënal dugg kasoo ma gënal yu bon yi ngeen may woo maa ngi seer ci yàlla ni man mii di wax ak yéen dem prison moo ma gënal gis dëgg te dama ko wax yàlla xam na ko yàlla xam na ko mbokk yi association yi yi taxaw ko kos la baro sëri loxo jaaraama jaaraama syndicaliste yi waaye jaaraama enseignant yi ñu amuk bañ nag laa wax ñi nga xam ne buñ gisee loolu dëgg dañu révolté wu amuk bañ ni lii duñ ko nangu xam ngeen UNESCO lii ñu bëgg a dugal suñ gone yi waaye nag yàgg naa ko wax ñun ñoo fal boo xam ne du président du président ndax itam mbokk yi nañu bàyyi xel ni président dëgg da ngay sàmm sa askan da ngay ñoŋal sa askan ñoŋal say ndaw ba ñuy watee référendum ya waxal naa leen vie ak non du contre ak président du ànd ak diw mais xool luy jëriñ sa réew di jëriñ say ndaw ëllëg loola moo tax léegi nag tey ñu ñi ko wate woon wallahi asim ku wate woon wii joojee tey bu yàlla rëq sa ndigg ndiggal président ëllëg ak ndiggal ñi ko topp di rëq sa ndigg yow képp man di doon nag wax ku wate woon wii joojee di wuy yaay booy ndax wii joojee ci la ministre yi ñuy wax Sarr mbokk yi lan mooy Sarr Sénégal ba Sénégal yi Sénégal ba tey góor ak jigéen lañ fa xamal jëkkër ak jabar jeex na góor ak jigéen jëkkër ak jabar mais lan mooy Sarr président bi fi nekk bi fi toogee la fi indi benn ministre buy dox ci wàllu Sarr mbokk yi Sarr bu ngeen ko gëstoo gëstu ji leen nit day jéem a guddal ab gëstoom du dara lu bu góor am kilifteef ci jigéen bu jigéen am kilifteef ci góor. góor ak jigéen ni ñu amee la neen war naa mën a am lu bokk bokkute góor ak jigéen nañu andil lesbienne muy jigéen ak jigéen ju sëy nañu andil borom ñaari turi muy góor ak góor guy sëy nañu fexe ba yàq diggante góor gu bëgg jigéen ak jigéen gu bëgg góor diggante yooyu nañu fexe ba xajamal ko ci ndaw ñi ba góor na taxaw sax ni man jigéen laa bëgg a doon jigéen taxaw ni man góor laa bëgg a doon loolu lépp seeni xalaat la te li ma lay wax su fekkee yéen gëstu te guddal seenu gëstu da ngeen ci am lu leer nañ mi na nag ku toog di seetaan kontaan ba rafet loxo mënu ko moo tax maa ngi jaajëfal baax a baax suñu mbokk suñu xarit dàmbooj syndicaliste dàmbooj moo tax kara am na benn kii ndax am na fu ñu bokk am na kër gu ñu bokk euh, di euh, dugal na benn information bu am solo ay leeral yu leer macha allah sëñ daam ñu mel ni moom itam maa ngi leen di jaajëfal képp koo xam daal lu dul dëgg boo gisee ci réew mii di nga ko dénoncé yàlla na fi yàlla yàggal mbokk yi président bii ñu yor lii muy dox te mu leer ñëpp ni du du yoon baaxul ci réew mi baaxul ci gone yi lu ñuy jàngale waa waa ELESCO lu ñuy indil ay procès bëgg noo jàngal sëy doom wàllu sëy lu ñuy sëy loo ci jàng ku am jabar xam nga na nga ko war def ku am jëkkër xam nga na ko war def loo ci jàng wàllu sexe neex wàllu wàllu li ñuy wax awra moom moo leen neex jël ay gone yu ndaw bëgg leen a teg ci ay kalaas naa nii ngay defee sa awra nee ngay defee awra jigéen ji nii nga def sa pëy ni nga xam ne yu bon yu ñaaw yooyu bu dee leen war a jàng bari bay bëgg a dee ñu war leen éduquer éducation islam bu baax war leen a jàngal kan mooy si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul war leen a jàngal kan mooy ma Alaaji Malik war leen a jàngal kan mooy ma bu Kunta bu Njaasaan war leen a jàngal kan mooy Cheikh Ibrahima Niass bu war leen a jàngal war leen a jàngal si Omar Futiyu Taal ak mag ñu baax ñu fi nekkoon gone yaa ngi xamuñu dara ci histoire ay valeur ñu ñàkk ko leen a jàngal ah, yu bon ci wàllu sexe góor lu mu ci jigéen jigéen lu mu ci góor ku am jabar xam noo koy def am jëkkër xam noo koy def kon bokk yi lobby yi dikkati nañ andeeti seeni xalaat pour proposé na nu ko nag maa ngi gis nag Sénégal ñu bari ñu ngi bañ mais ñi nga xam ne ñoo fi nekkal diina ji nañu jóg du ma denc di ko wax de ñi fi nekkal diina ji nañu jóg teel a ci lii professeur yu mel ni bu Moussa jóg si Abdou Ahad Mbacké wax ma Abdou Aziz Mbacké jóg wax si Abdou Aziz si jóg wax Baye Niass Baye Niass jóg wax ñeneen ak ñeneen ñi fi nekkaleen diina jóg wax kenn ku ne boo fi nekkalee diina jógal wax réew mi foofu jëm xamuñu ko de waaye yàgg na fi xam ngeen ni bi fi Barack Obama ñëwee président li mu ko leer na pour le moment taxawagun pour wàllu góor jigéen mais na duñ leen fitnaal loolu la ko wax mu dem France journaliste France bi laaj ko kara dugal naa ko fii ñëpp ñu ko seetaan mu ko góor jigéen ñi ne Sénégal am nañ plein droit pour def seeni marche leen neex ci réew ma ñu ne ko est-ce que kon askana du leen fitnaal loolu la ko journaliste bi laaj mu ne ko noo buñ leen dee fitnaal it du jóge ci état moom état leen laal ñëpp leen laal du leen laal lii la police laa léegi nag ku mel nii ne ci réew mi ñu bëgg a yàq suñu ndaw du ngeen jóg yéen ñëpp kenn ku ne wax li nga war a wax naa ci yàlla ni bu ñu bàyyiwul lu jóg ñu koos la bara suñuy loxo njaboot gi dañuy daaka da ngeen leen a wërtu sàmm ëllëg kenn ku ne dañ lay laaj sa soxna laaj la say doom ndax indi ko woon nga leen ndax yara nga leen ci diina way sàmm nit dina jaamu yàlla boo war a dugg àjjana njaboot gi ñëw taxaw laaj seeni àq ma àqee jeex takk ñu dugal la sawara njaboot nga dugg àjjana loolu da ngeen yaakaar da ngeen ci am responsabilité am na ñu nekk président moonu moom wala ministre yi ko jàppale ñoonu moom ak ñii di dox ci ñu doxu ci dëgg ñoom ñoonu moom yàgg naa ne Sénégal amul président am ministre la am lu France dogal loola mooy am Sénégal amuñ lu ñu xalaat li ko war a lépp nag mooy jël suñu ay bëgg-bëgg dem ñaani ko tubaab yi tubaab yi nag duñ may nit di la may rekk noonu déedéet luñ la may dañ lay tegal ay sart sart yooyu nag lii ci bokk ñu fexe ba li wax saar góor jigéen les benn nag loolu lépp ngi ci biir Sarr dañuy wax Sarr ministre Sarr ki ko yoroon mooy Ndeye Sali Diop Ndeye Sali Diop jàng damay wax turam yéen ñëpp xam ngeen ko bokk ci ñi gën a xeexal Sarr ci réew mi bokk na ci ñi gën a bañ daara ci réew mi leen ay mbiram moom la mag moom la président de la république dénk wàllu Sarr lan mooy Sarr ministre bu yor wàllu Sarr loolu dafay war a jóge mais ca référendum yëla woon mbokk yi ay nan dox dem nañ dox ñu dem rek tees wallahi asim daalo képp koo xam ni yaa ngi ragal dara ci diine mbokk yi lan mooy kaso luy kaso nañu gëm yàlla ragal yàlla dox ci dëgg hatta ataana liqiin ba kara dee duñu dikkal ñu xam ne dee nañ ci dëgg mais yii ñu nekk mooy lan te boo dee wax dëgg bari ay noonu boo dee wax dëgg ñu ni waxati wallahi alasim duñu denc lu nu gis ci réew mi lu dëgg deen ko danoose yaakaaruñ ci ku nu bëgg bëgguñu ci ku nu jàppale ragaluñ ci am noon bëgguñu ci ab soppe sunu borom rek tax ñu ko yëpp bu ko xamee yonent bi salaatu xam ko seexul xadim sama yaakaar ji xam ko soxlaatuma keneen ko xam dinaa ñëwaat ci lii nga xam ni moom la waa UNESCO bëgg a taxawal sur projet bii ñu bëgg taxawal te syndicaliste yi ñu baree bari lànk ñu nga xam ñooy enseignant ñu baree bari lànk am na ñoo xam nag moom lànk ñu ndax looloo leen di ki nga xam moom alali àddina la yitteel waaye Sénégal ñëru ko réew mi ñëru ko xale yi ñëruñu ko ñooñ moom lu leen neex def ñooñ waxuñu leen mais ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg seen réew nañu jóg défendre lii bu ko kenn nangu na ñëpp jooy loolu buñ dugal gone yi lii ñu bëgg a dugal muy jàngale wàllu sëy ci école yi pourquoi lu ñu jàng ci sëy